wa inni yaaja bika wa zuriyataha mina sheytaani rajim rabbi auzu bika min hamazat shayatin wa auzu rabbi an yahduruni barke borom Touba barke borom Touba mbooloo mi bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi di gërëm Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nañu jël suñu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal saa borom ko mu yàgg te noonu la ñuy ñaanalee Serigne Amdi Modou Menda Fall saa borom kattanal yi tey dañoo yàlla yokki leeram taas ñu si bari rek nga xam ne tey kat bis bii nga xam ne moom lañ fi amal tey mooy bis bi nga xam ne moom la Cheikh Abdou Lakho wu ji saa borom tey nag nu ñëw fi at daara ji war a yi at njaboot gi at ni ñu ko war a def waaye nag nu fekk jàmbaar sunu yaay kan soxna Ndeye Lo moom Serigne Fallou nga xam ne tey ku ne xam nga ni waa Leral TV danoo ñëw kat ngir mën a xool bisub Cheikh Abdourahmane Mbacké moom Serigne Fallou gi ni ko nit ñi di waaje ak ni ko nit ñi di bu ko defee maanaam yirim dañuy doxantu tuuti rek dem ci waañi xool jëwrin yet yooyu daal di dellu si incha allah rabbi bun sharifun sharifun tuuma jubluwu la sëriñ du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku kay laaj ku laaj mu may la nga géejal sëriñ Fallu xanni la ana Muhammadul Muxtaar ana Muhammadul Muxtaar ana Muhammadul Muxtaar du maa ko way di ñaanal Serigne Touba sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér noonu lañ koy ñaanal am Amdi Modou Mbenda Fall mu yàgg fi te wér ah di leen sant di leen gërëm yànda macha allah sa taxawaay di sant tamit waa télé bii nga xam ni ñooy leeral TV di leen dox seen yéeg waaye di leen ñaanal jàmm di saar képp koo xam ne rek waa kër sëñ Abdourahmane Mbacke moom seen Fallou nga di leen ñaanal seen taxawaay yàgg. di ñaanal sunu jàmbaar ji sunu borom yokki leeram taas ñu ci barkeem sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Fallou ku ne xam na ne Ouest Foire ku ko tudd moom nga daan tudd mu nekk leeru sëñ Fallou dénk ñu mbooloo ñun ñii di wax gore lool daa doon wax nag nan leen ànd ci ngor bëgguma ku mooy wor bëgguma ku moy jay moo tax ay jàmbaar la àndal ay gor la àndal moo waral chaque dix-septième dix-septième jouru dañ koy fàttaliku ñun ci la ci la ci la ñaanam gi di bisam bii nga xam ne ci la génne woon àdduna ci leen ko taxawal ni di ko def daanaka ay ati ati ngi ni daanaka quatorze ans ñi ngi ci te yàlla na jëm kanam di ñaanal sunu waajur yi mi nga xam ne mooy waajuram maam Ndeye Lo mu yàgg fi te wér lool saa yu nu gëstoo rek gis ko loolu lañ bëgg ci moom ndax day jàmbaar ñun moom la ñuy xoolee sëriñ bi taxaw taxaw taalibe yi taxaw wëllëre yi taxaw ñi nga xam ne ñoom ñooy soppe yi ñëpp mu def leen comme sëriñ bi la leen def barki sëñ Fallou kon ñu santaat bu baax di ñaanal ñëpp di ñaanal waa daayira sop sëñ Fallou nag Touba Golf góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ne fii ak ñi bitim réew ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàggal taxawaay bi ñu ngi ñaanal tamit soxna yi ñu ngi ne ci waañ bi ak waa waañ bi yëpp ak góor yàlla yi suñu jëruñ Seexuna Mbaay mi nga xam ne mooy jëruñ fédération ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam sant nañ bu baax alaaji yanda sa taxawaay nag am na solo ñu lay ñaanal jàmbaar nga barke Serap Fall moom mii tey lii lépp bu amee sama jëmm ji da cee jaar waaye nag ku am yëg-yëg ci daayira bi la ku ma fonk la ndax sax yu toogee mi may sagal te man man yooyu sax ñoruma ay di ma tudd ñoruma mais. bi lenn rek moo ko waral mooy àndoon ak jàmbaar ju mat jàmbaar muy sëñ Abdourahmane Mbacké Falilou euh, doomu sëñ Fallou rek euh, moom doy na lépp waaye dafa nekkoon doomu sëñ Fallou ba ba ba noppi euh, nekkoon koo xamante ni. ku bëggoon taalibe mi la ku leen yëgoon koo xamante ni digganteem ak taalibe yi moom moo leen doon waxal boppam ni leen euh, li ma bëgg ngeen def ko mooy fonk seen ndey fonk seen baay loo leen am jox leen seen wéjur yeggoon na si sax banaan naan ku amul sa ngërëmay wër wéjur man mënuma la gërëm waaw euh, seen Abdou nekkoon koo xamante ni tey taalibe yi li tax seen Abdou wan leen ginnaaw te demuñu fenn lenn rek la mooy defuñu lu mu leen ji la waaw ndax sëñ Abdou dafa doonoon koo xamante ni tey taalibeem boo gis ak ku mën a doon euh, ci dëgg rek la ànd ak yow waaw ci dëgg rek la ànd ak yow moo tax bi mu wàccee liggéey ak léegi euh, yàgg na lool waaye teewul taalibe yi moom kenn ku si nekk tey la gën a dëggal pas-pasam tey la gën a am yéene euh, liggéeyal sëñ Abdourahmane Mbacké Fallilou ànd kook nag suñu maam soxna ndeyloo wax dëgg yàlla moom it mu ñemeloonu lool lool lool ndax diirub bi sëriñ bi wàccee liggéey ak léegi moom la ñu àndal liggéey bi waaye mu doon koo xamante ni li sëriñ bi doon fi sëriñ bi doon taxawee lépp euh, daf ko taxawoo ba mu mat sëkk waaw kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootam yëpp waaw di santaat taalibe yi bu baax baax nag ci seen mobilisation Euh, tamit bu am solo bi nga xamante ni moom la ñuy def muy màggal gu mag muy Kazu Rajab. voilà ñii nag nooy jàmbaari Cheikh Abdourahmane Mbacke mu sëñ Fallou gi tey nag ñu fekk fi suñuy suñuy mag fekk fi suñuy jëwriñ ci kër gi wax dëgg ne yàlla nekk ay jàmbaar nii ni koy defee nii ci bis sëñ bi nii lañ koy defee Touba kër sëñ Abdourahmane Mbacke mu sëñ Fallou soxna yaa ngi nii jàmbaar yaa ngi nii murit jëwriñ bi maa ngi lay siyaar baax di la dalal bu baax a baax tey ci suñu bisu sang bi di bëggoon a xam lan ngay ci bis bi defaral sëriñ bi waaye tamit naqar ndax wax dëgg yàlla sunu ku baax ki xajoon na fi ba tey wax dëgg yàlla noonu nag eh, du ay taalibi rek la lanu ay nongo rek lanu duñ def lu dul jàppale soxna yi ci liggéey beeg yooyu waaye am na lu ñu yëg sunu xol loo xam ne moom neexut ndax saa bu buñ fàttalikoo ni lii ñuy def nii sëñ Abdourahmane lañ koy defal te neewu fi te munoon fee ne xajoon fi ba tey wax dëgg yàlla dañuy am loo xamante ne day des sunu xol macha allah kàddu yi am na solo di jëwrin daara Cheikh Abdourahmane Mbacke mu sëñ Fallou Touba Galba soxna mis ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la wax bi ci sëñ Abdourahmane Mbacke bi ko ko yëgee at noo koy dundee waaw mi ngi lay ziar bu baax jëwrin yanda di la ziar di ziar waa Leeral TV di sant bu baax di ñaan suñu borom yàlla fekkee leen ñu ko ay ati at yu bari di ñaanal jëmm ji nga xamante ni moom la ñuy ñaanal tey mu sëñ Abdourahmane Mbacke suñu borom yeesal ay yërmandeem te xaare ko àjjana di ñaanal suñu yaa Ndeye Lo mu yàgg fi lool te ànd ak wér di wax ne nag kontaan nañ tey retrouvé wu waat ni ci bis bi ndax daayira Sëñ Abdourahmane mu Sëñ Fallou ku nekk dégg na ko waaw ñu ciy kontaan bu baax nag di ñaan fekke ko at yu baree bare macha allah soxna mi soxna aji maanaam mbay di ziar waa bépp sopp sëñ Fallou di ñaan jàmm rek ndax chaque année sëñ Abdourahmane Mbacke dañ koy ñaanal fii ci Ouest Foire di gërëm nag yaa ndeyloo mi nga xam ne mooy waajuram yaa ndeyloo mi waajuram ñu ngi koy ziar di ñaan yàlla ñu koy def ay ati at chaque année dañ koy def ni waaye yaa ndeyoo ñu ngi lay ziar gërëm bu baax di la ñaanal yàlla lii nga koy def chaque année kontaan nan torop nag kontaan nan torop yàlla yàlla dolli jàmm di gërëm soxna yëpp nag. lii rek lañ am ndax sëñ Abdourahman moo nus ji loolu sëñ Abdourahman Mbàkke kenn nu koo fay yàlla na yàlla dolli jàmm rek ñu koy ñaanal chaque année ñu koy ñaanal kontaan nañ tor ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di am mbégte ak contentement ci daje gi ñu fi daje ñaan suñu borom bi nga xamante ni moom dara tëw ko yàlla na leen yàlla yokkal leeri sëñ Abdourahman te taas nu ci barkeem ci barkeem sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan tamit yàlla bàyyil lu fi sunu waajur wii di Adja Ndeye di am mbégte nag ak daje feeg yéen euh, sëñ Omar xamante ni di jaay la ci sëriñ bi ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax di ko wàcce wàcce waayam euh, di di di ko ñaanal moom it moo soxna su si yàlla bàyyi leen sunu kanam barkeb sëñ Tuubaa sëñ Abdou nag kenn la woon ci sunu jëmm euh, dinaa ci faral di nettali lu lu xaw a kéemaane. bi muy gën a ji Pekin keroog fii lan départ ci këram mu ne ma Modou Galas yow sama oto ngay dugg daal di ñëw dugg ci otoom bi ñu ba ci autoroute bi ki ko doon dawal mel ni dafa doublé oto soxna maam Faati waaw ñu dama daanu ci oto bi mu daal ko mu daal ko ne diw noon naa yow oto soxna si nga romb mun ko waaw mun ko taxawal ba mu romb doomi Sëñ Fallu kenn du ko jiitu nga xamante ni keroog jàngal na ma loo xamante ni ci fonk kilifa kon yàlla na ko yàlla fay fa mu nekk am nañ ci yaakaar nag bu baax ak yaqiin ndax bis bu mu dem ak weer wi mu dem moom kenn ku ne xam na diggante sëriñ Touba ak koor macha mel ni nag sëñ Modou daa am loo xam ni da ko daan def ci sëñ Fallou muy way wa nga ko woyoon àdduna yëpp di ko bàyyi xel tey nag bisub sëñ Abdourahmane lan wax bëgg nañ ci ñaari biit yoo xam ne danga nu koy waxal fii ci Leral TV bi. waa xanaa di leen jox rendez rek ci kanam ci baas bi waaye xam naa ñu wax ci ñaari biit rek di wax waa Leral TV tamit nañ ma xaar incha allah maa ngi ñëw bu soobu suñu borom. bari moo yor muñug suuf te fallu yaatu yàlla sëriñ Fallu mooy ab sëriif moo yaatu moo bari ngor moo yor mu ñuk suuf te Fallu yaatu yàlla moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñor di ko fab yërëm ko tabbal ko fil jannaati yàlla moom daana fekk ku yor bakkaar ba xol ba dilib mu fóot ko laabal ko bam leer nañ yàllaaw moom daana fekk ku fan way jeex mu yokku fanam moo yokku saafan wi cey sëriñ Fallu yàllaaw barke borom Tuuba sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba di maanaam dex ku dem duy ku nemes bu génde xam boromam ku soobu tey wey te aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf di duyal moroomam ku soobug dex na xam ndox dof bi te wotum ndox lewet na te wex ci biiram ku sàggan sanku faw te lab doo duy doo set doo setal doo xam boroomam meloy bamba ngi waaju xamul na dégloo te roy roy lu jikkoom ya moo xam boromam barke borom Touba. macha allah sëñ Omar Ka mu mel ne xasida yi taw féexe na waaw di la santaal di ñaan doole Serigne Touba mi nga xam ni te moo waral lépp yal na leen saa borom kattanal mooy leen wér. may leen tawféex gi ngeen mën a liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ko xewoon rek ba tey ñu ngi fii kër sëñ Abdourahmane mu sëñ Fall bu ko defee dañuy jug dem seeti suñu yaay soxna Ndeye Lo moom Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké Cheikh Abdourahmane moom wax ci moom dana mën naa yomb mën naa jafe ndax euh, nit la koo xam ne du loon mu doon doomi sëñ Fallu rek moom da koo baaxal nit ku baax loolu nekkoon koo xam ne ku fonkoonu njabootam la ku fonkoon ay taalibeem bis bii nag dafa nekk bis boo xam ne bis bu rëy la te baatin la it wàcc liggéey ci bis bi nga xam ne moo doon mooy bisu badar te nag sunu borom dafa wax ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbim yurzaqun bu leen njortu mukk ni faatu ci yoon yàlla danoo faatu déedéet ñu ngi dund ci seen seen wetu borom moom nag bokk na ci ñooñu ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram yàlla yokk leeram njaboot gi mu fi bàyyi nga xam ne ay taalibeem lañu nosu ànd doon benn léegi léegi rek lañ ko doon waxtaanee yàlla na yàlla barkeel leen ba li ñu mbébét ci yoon wi euh, yàlla dafa leen lu kawe seen njort ndax jóge fi jóge fi maanaam euh, ci ci ci zahir kër gi gën a xumb loolu borom baatin rek ko ko man ku ñëw màggalu Kazu Rajab màggal Touba di nga da ngay defe ne sax sëñ bi mu ngi fi ba léegi yàlla xam na ko ba loolu pas-pas di sant sunu yaay ju tedd ji nga xam ne euh, moo fi nekk sunu yaay ndeyloo ñaanal ko yàlla moom tamit ko mën a téye wëllëre la képp ku sëñ Abdourahmane amoon téye la ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko sunu kanam ak euh, euh, jigéenam yu baax yi nga xam ne ñoo fi ne waa kër sëñ Fallou yëpp rek sona maam Faati Mbàkke nga xam ne diggante moom sona maam Faati Euh, maanaam mbir la moo xam ne baatin la dëgg-dëgg la waaw seen diggante du rek lu lu ñu seen seen waajur meññ waaye danoo xaritoo xaritoo goo xam ne ñëpp mun nañ koo seede ñi lay ñi lay sant nag bu baax mi nga xam ne yaa nekk taalibu Sëñ Abdourahmane nekk fële ci Leeral TV euh, ñaanal waa Leeral TV yëpp ñaanal di ko dale ci seen kilifa gi yàlla kàttanal ko wéral ko ñu fa nekk ci journaliste yi ak animateur yëpp yal na yàlla may leen kattan ak wér kon nag ñu ngi wàccee foofu suñu kàddu ndax sëñ Abdourahmane moom wax ci moom euh, sëñ yombut waaw kon ñu ngi daaneel foofu sunu kàddu rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man mi doon wax nag maay Serigne Fallou Sow jànkatu xasaayid xaritam laa woon jànkatam laa woon. Ah, alhamdulilah sant yàlla rek moom ni koy dundee rek mooy. ñu murit moom xam nga ne muy dundee rek moom toujours rek fu mu nekk ndigal la ko fa toog ndigal la ko fa bàyyi loolu la ñuy dundee bés bi toujours rek bi fi nekkee ak ñun ñu nekk moom di dund ak moom bés bi ba yàlla suñu borom def mu jógee ko fi ndigal it moo ñu fi bàyyiwaat ba tey rek comme nam ñuy nam ñuy téye woon ci loolu rek bi ñu fi ndigal li bàyyi itam ndigal li mu ngi jógee ci sëñ Abo moo ñu fi bàyyi ba tey gi ñu toog fii ne ni na ngeen continuer kër gi na ngeen continuer woon na ngeen nekkoon ak moom ngeen continuer ko ak moom ñu continuer ko moom alhamdulilah boobu léegi nag ñu ngi gën di sant bu baax ndax yëf yi day gën di dox di gën di aw yoon di murite di gën ni ko sëñ bi bëggee rek ñu doxalee ko noonu daf koy gën di dox ne noonu toujours rek yoon sëñ Tuubaa nag moo mel noonu amul tànk ginnaaw moom tànk kanam rek la am ndax sëñ bi boo fi boo fi nekk ku ñëw ci kër gi da nga yaakaar ne sëñ baa ngi fi ba léegi waaw kàddu gi rek ak euh, pastif mu nekkee woon ak ñun ak euh, euh, taxawaay ba mu taxawoon ak ñun ak dëgg gam dëggu woon nekk ak ñun rek moo ko moo ko may lii ba léegi moo tax ñu nekk fi ba léegi rek ñuy sant rek bu baax di sant taalibe yëpp ñu ngi leen di sant dongo yëpp mu ngi leen di sant bañ jiite sante suñu waajur bi nga xam ne bii nag moo ñu tax ñu xam Cheikh Abdourahmane Mbacké muy soxna Ndeye lu na wax mboor ya ak maye déglu leen sëriñ bamba doomam ji amul nawre raw leen sëriñ fàllu naa wax mboot ya ak maye déglu leen sëriñ bamba doomam ji amul nawre raw na leen sëriñ fàllu mooy tàndarma toor meññi neexi doom lu toor meññi meññi wute sëriñ Fallu moo di koom li lee ma jël saa lépp man tabal ci bi bato te loo sëf mu jàll bi ma tur wute naag oto sëriñ Fallu xajul duniyaa takk ndeer ba lañu wan ca badar la feeñoon Fallu dem del si waat fi nun sëriñ Fallu ba mu feeñee la xéewali walwale ci àdduna duutul jee li lee jar di taltali barke borom Touba. Mohamed Fadal jërëjëf Cheikh Mohamed moom day lañ gëm moom lañu wóolu moom lañ bëgg moom lañu yaakaar suñu dund moo ko moom suñu faatu moo ko moom suñu koor moo ko moom suñu julli moo ko moom Cheikh Mohamed Fadal rek laa. moom rek laa te moom lay doon ba ilaa yow mi diine jërëjëfe Cheikh Mohamed Fadal jërëjëfe Cheikh Mohamed seex ma Cheikh Mohamed Fadal macha allah jërëjëfe Cheikh Mohamed Fadal ndax tey moom ni ko waxee woon rek soxna Ndeye Lo mii di sunu maam dañ koy ñaanal ci barkeb sëñ Fallou mu yàgg te wér ndaxte ñun ñi nga xam ne ay taalibey sëñ Abdourahmane la oo dëgg neex yàlla jooy nu sëñ bi ndaxte maam lépp loo xamante ni sëriñ bi daan na ko taxawoo taxawoo nañu fu ko raw ndax sëñ bi nag moom wax dëgg neex yàlla daa làqu suñu bët rek waaye mi ngi fii lool ni nga waxee woon rek ànd ak tey waa télé bi Leral TV ñëw kat ziar si ànd ak mbette bi nga xam ne tey mooy mbette laa koy tuddee ndax Cheikh moom yaakaar naa ni lépp mbette la dëgg yàlla sëriñ bu mel ni moom jafe na ci mim réew koo xam ne danaan ñëw naan fonk leen seeni waajur ku fonkul say waajur mënuma laa ñaanal yaakaar naa ni naan balaa ba balaa ma leen laaj dépasse kenn jox leen ko seeni waajur yaakaar naa ni sëriñ bu mel noonu moom wax dëgg neex la ko am war nga koo jàpp tey ba mu nu wanee ginnaaw ba tey tey la kër gi gën a neex tey la kër gi gën a naat tey la mbokk taalibe yi gën a gën a gën a gën a jàppante mu mel ni tey waajuram bi nga xam ni tey mooy soxna Ndeye Lo moom Sëñ Fallu dañ koy ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam ba lépp lu namm liggéeyal Serigne Touba Sëñ Fallu rek saa borom kàttan la ko bu ko defee nag dañuy àndaat jotaay wi rek ni ñu ko waxee woon rek jàng nañ fiy kaamin jàng nañ fiy alxuraan ñu ngi wu ne gaa yaa ngi ci baas bi ne war fa dem mottali yéene yi nga xam ne mooy jàng xaside yi nga xam ni tey moom lañ fa war a mën a defaat léegi léegi at li sabab bis bi boo ko defee maam sant nañ bu baax yow it di la ñaanal. ca kanam ca kaw ca kanam rek leeral googu muy def yàlla na ko ci suñu fàllu gën a fekk ba léppam leer ci barkeb Cheikh Mohamed Fadal liggéey bi itam barkeel yàlla ak suñu fàllu Mbàkke nangu ko jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ bu baax. sant bàjjen mi toog bokk sama papa benn baay sant si Abdourahmane Mbàkke mu sëñ Fallou di sunu waaju baax a baax a baax ku bëggoon ay mbokk ku bëggoon ñu torop foo ñu gisee duñu xàmmee doo sëriñ bi duñu taalibe samay doomi bàjjen bi samay doomi nijaay ngeen toog leen rek la ñuy wax kon nag ñu koy ñaanal Mbàkke kon nekk yàlla na ko yàlla dolli yiw taas ñu ci barkeem di ñaan bàjjen mi fi desandi ak ñun ñu desandi fi di ko ñaanal ba ca kanam kanam sant nañ ko bu baax a baax Mbàkke Balla yàlla na yokki leeram taas ci barkeem di sant suñu bàjjen bi ñu amul moom te bàyyi di bàjjan te bàjjan féete nañu fu ne bañ ñàkkee bàyyi ba léegi moo fi sunu ndey moo fi sunu baay moo fi sunu lépp kon ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di sant suñu mag yi hélas jóge ba Touba leen sant ñun ñëpp famille daal ñoo joxe sant ak gërëm sant bàjjan bu baax a baax di ko gërëm ñaan yàlla yàggal ko sunu kanam di sant sunu Abdourahmane Mbacke di ko ñaanal bu baax a baax duñ ko fàtte mukk ci ñaan Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram taas barke barke Seexul Xaddiim barke Sëñ Fàllu Mbàkke nañ ko fi teewe at yu bëree bëri. baax na jërëjëf ñu leen di sant bu baax yéen waa Leral TV ndax du benn du ñaar du ñett du ñeent yoon yuñ fi daje eh, leer leen ne seen kóllëre léegi sëñ bi yéen a koy jàllale bu baax a baax tey jii nag ñun suñu intervention dañ koy jëmee rek ci sant ci turu soxna si eh, lépp lu bokk ci daayira bi surtout daayira dakaar yi eh, ci taxawaay bi taxaw ginnaaw sëñ bi. ak sakkanal gi nga xam ne ñu ngi koy sakkanal soxna si ba tax na fu sëñ bi fu ko sëñ bi bàyyi woon nag ni ko soxna si waxee yóbbu nañ ko ñaar fukk loolu nag ñu ngi ciy sant euh, daayira yëpp ndax daayira du benn di ko ji di ko jaarale ci turu jëwriñ ci sëñ naa ak sëñ kii laam mi fi jóge léegi bu ko defee ngeen jàllaleel ñu ko ñu xam ne daal ñun doomi soxna yi daal ñu ngi sant taalibe yi soxna sëriñ bi bu baax a baax a baax ñu leen sant bu baax mu mel ni dañoo ñëwaat fii ci kër gi daara Cheikh Abdourahmane Mbacké mu sëñ Fall ngay jaay jooruñu daara Touba Pikine jooru ñu ngi lay nuyu bu nga xam tey bis bi kat ñu ko yëgee ak lu sabab waaw sëñ yàlla ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la sant di rafetlu liggéey bi ak taxawaay bi di sant sëriñ Touba Khadim Rasoul bu baax dellu di sant Cheikh Mamadou Fadal suñu yaakaar tey ak ëllëg waaye di ñaanal mu Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di sant sëñ Abdourahmane suñu yaakaar tey ak ëllëg suñu buntu Cheikh Mamadou Fadal di bés bii nag ah, tey la fukkee ren la fukkeelu at ak ñeent bi fi sëriñ bi jógee ak léegi ñu koy taxawal li sabab loolu mooy dafa am loo xam ne dañ koy jëflante woon ak sëñ Abdourahmane muy suñu bunt ci Cheikh Modou Fadal yu yàlla defee mu jóge fi ñu jàpp ne mënuñu koo defal leen lu taxawal ko bés ñu ànd kook yéen nag bu baax di ko def ba ren la fukkeelu at bi ak ñeent eh, fekk fi woy juróom bu tedd bi di soxna Ndeye Lo mu sëñ Fallou ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ak jigéenam bi di soxna Xadi Sylla ak njaboot gi yëpp ñu ànd ko ñoom di ko def waaw ah, te xam ni ñun Cheikh Abdou lii rek lañ ko deseel ndax dañoo ànd nag moom moom wan ñu Serigne Touba wan ñu Sëñ Fàllu te mosuñoo joxuñ boppam waaw loolu nag moo waral lii waaw ah, ndax boo àndeek nit mu lay xiital ci boppam wala mu lay joxoñ ci boppam amaana bu fi jógee lu mel ni du am mais moom sëriñ bi rek la ñu wanoon kon noonu nag la ñu àndoon te it lim ñu daan digga rek mooy na ngeen ànd bokk ndey bokk bay nekk benn delloo rek ci aaya bi suñu borom wax wax sax si moom bi abdillahi jamian wala tafaraxoo ñu ànde noonu muy ànd bu sel bu rafet moo sabab bés bi tey ñu nekk fi xëy wàcce kaamil def ay bernde ah waxtaankat yi jàngkat yi teew fi ngir rek jëmal bés bi daanaka kàddu googu dëkkoon na ci suñuy nopp sëriñ bi daan wax waaw sëriñ bi li ma la wax rek mosu ñoo joxoñ boppam ndax sëriñ Abdourahmane li mu ñu daan wax mooy na ngeen fokk seen ndey fokk seen bay ku amul ngërëmu ndeyam ak baayam mënu ma laa ñaanal waaw ndax man damaa fonk samay waajur beneen bi mu ne na ngeen ànd ngir jëmmi sëriñ tubaa lépp lu waaye yor sa mbokk taalibe bëgg ko yëkkati ko jox ko ngir jëmmi sëriñ tubaa te ngeen fonkante jàppante bëggante su ngeen ko defee rek lépp lu ngeen yotti ngeen ci jot te kon noonu ci loolu lañ doon tënk tey li ñu daan wax mooy bu ñu mosaan daje fii dajale koom gi ñuy màggale bu ñëwee ni fu ngeen tollu ci liggéey bi ñun ko maanaam mbàkke de dajale nañ ab lim mu ne ci num ñu ñun ko ci nangam mu dugg biir néegam génne lim bu toll noonu ne maa ko defaat ci liggéey bi kon sëriñ la boo xamante nii li ma lay wax rek ñun dafa àndoon ñu ànd ak ñun di liggéeyal sëriñ Touba waaw te it bu ñu dajee ci kër ga màggal daan lépp fi manqué maanaam bugguma ko fi xiif bugguma ko fi mar lépp lu manqué na ngeen ma ko laaj te loolu daf ñu ceeb te it fi jógee ba léegi way juróom bi noonu la ànd ak yu soxna ndeyloo koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ko euh, li nga xam ne nag moo waral bis bi mu di sëñ Abdourahmane Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadilou mi nga xam ne maanaam dafa tombeek weeru koor ci juróom-ñeenti fan yi koor gi suñu borom subhanahu wa taala dogal mu wàccab liggéey euh, tombeek bisub ajjuma boo xam ne dafa julli ci jumaa yi Tuubaa ba noppi rek euh, ci bis boobu nag la sunu borom subhanahu wa taala dogal mu wàccab liggéey su ko defee nag bis boobu booba ak léegi toll ci fukki at ak ñeent ci ren yàlla sunu borom dogal it wax dëgg yàlla saa yoo xam ne weeru koor yu feeñ na muy benn fanub euh, Ramadan dañuy daal di tàmbali wàccam kaamil mi ndax it euh, boo gisee ñu def ko ci fukki fan yi di ko ci ñaanal bu delsee fii ci dakaar ñu daal di ñëw fii waa dakaar ñaanal ko euh, soxna si bu xamee ne dem nañ bi ci benn fanu maanaam weeru koor wi li ñu njëkk a def mooy daal di tàmbali kaamil yi alxuraan yi di ko wàccee di bu ñu xëyee dañ danañ wàccee kaamil bu ngoon ngeen jàng kaamil ba keroog li nga xam ne mooy bis bi su ko defee soxna si ñi nga xam ne ñooy jàng kamil ci jumaay sëñ Touba Xaadimu Rasuul ji nga xam ne ñooy jàng ci barabu sëñ Touba bi jóge fa dem ci barabu sëñ Abdou Xaadir jóge fa dem ci barabu sëñ Abdou Lahat ñooñu bu bis baa ñooy ñëw ci kër gi wàcce ay kamil muy ñaar fukki euh, kilifa ak juróom-ñett yoo xam ne ñooy wàcce kaamil foofa su ko defee nag soxna si daal di koy ñaanal foofa fekk na booba daara ji jàngal ko ay kaamil ak yeneen daara yi nga xam ne muy euh, sëñ Ousseynou Gueye ak euh, ki nga xam ne moo di sëñ Basirou Gueye fi daara nekk ak sëñ Jili fenn fu na la soxna si woote ngir rek nu wàccal ko ay kaamil ñaanal ko ci te xam ne aji dem moom li ñu gën a soxla rek mooy ku leen di ñaanal ndax isi doa yoon foo maytan wa yoon fol xaye woo jubul ujoor ñaan gi day dolli seen yoon di santaat bu baax a baax a baax ndax it taxawaay bi rafet na lool tey ci kanamam waajur wi nga xam ne amut leen lu mas a def loo xam ne lu dul day wax ne soxna si kat njaboot gaa ngi noonu mu toog ñu ñaanal nu lépp lu muy digle it soxna si day toog la nga xam ne moom la ca wax loola la ñëpp di def kon nag ñoo ngi koy ñaanal loo mu yàgg fi loolu te ànd ak ak ndax liggéeyal na alxuraan liggéeyal goo xam ne mboolem sëriñ daara yi nga xam ne wàcce na leen ay kamil kenn ku ci ne lam la doon yónnee ci solo loxo la ko teg ngir bégale la ko ndax comme ci man doon day wax ne war nga koo jàngal de xëy na ndax seen couleur waaye du tee nag képp ku wàcce alxuraan ba noppi rek dañ laa war a teral kon nag teral na ñooñu alxuraan ñu nekkoon foofu ca Touba muy waaj ñu nekk ci jumaa ji di fi wàccee kamil ak sëriñ daara yi nga xam ne ñoo doon nekk ci koñ ko ñaan di jàng kamil tey ji nu ñëwaat fii ci Dakar di ko ja di ñaanal Euh, ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Dakar sëñ Cheikhouna Mbaye ñoom ak euh, sëñ Birame la ak mboolem jëwriñ yi kenn ku ci ne bàyyi ay yitteem ñëw nu fàttalikuwaat ko ndax fàttaliku waaju baax moom dafay dolli lu bare bari te sëñ Abdourahmane daa wax ni man kat du ma fecc kóllëre te kóllëre dëgg dëgg dëgg nag mooy ki la wan gannaaw waaye bu fekkee ku ku nekk la nga nekk moom loolu dem rek ak dikkalente la waaye kóllëre gi mat na sëkk bu baax a baax ci taalibe yi waaye dara waralu ko lu nag euh, baaxaayu soxna si ak boot gi boot taalibe yi kon nag ñoo ngi koy ñaanal mu dool fi lool te ànd ak ak wér من من النبي سلم بتسليم بالكرماء وارفع وسدني بعد الربيع بكارا على النبي سلم بتسليم بالكرماء وارفع وسدني بعد الربيع بكارا ربي بما يزرعون أسان خدميا بجاء أفدلي من لله قد ليا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتم الملا محمد صلوات الله في أبد علي في عز في كل بي ولا أدعو إليه محمد مواهب لجملة خلقي ما يختار من برا ناجيت وجل أهواما وكرمني تقريب عاد وكل من قلبها رغم لجميل خلق رغم دمان يغنيني شرمان قرآن وقنا هدمة المصطفى عن كل مسد وضرب الخلق يا من جد حبنا قياما جل القدير ارحم جميع ورايا حادي الردى ما تمغنى قلب من دليل بجاه أفضل من لله قد لجا بسم الإله بركب سيخ فضل مين bur yàlla dollinu ay maqaama yàlla bismil ilaahi ji barkeb seyxi fadlu mi bur yàlla dollinu ay maqaama yàlla xalbuka saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangub góor ñëpp yàlla kooka di Seex Fallu kooka mag moo biir moo gën ñi njëkk ña gën ñi ñëpp yàlla ku mel ni moom musu fee am mukkudoon fi am te dootu am fii ci duniya wur ni yàlla aw tey ji ma joy Seexuna ana soppey Sëriñ Fal yee tey ji ma joy Seexuna Sëriñ Fal lu mbër ma ni mees mboolem lu دنيا جيني الله مريدي قادري أتيجاني جبغجوي أقسوسك أسماو سين خمي الله أقجد بغويري أقبدي لبغجوي أقدني أقنجناويك جاي الله الله malaayika ak jinne ak yeneen yi lépp nga ak sabay ak xuddub yaak walli yàllaaw wiital nu ruy ci duniyaa yépp kulluma ru yépp jooy ko cey seex balli yàllaaw julli di ak gi ak àddina ñépp nga jooy nunu ñépp jooy nan ko ngir baaxam nga yàlla aw niwit ba juy na ba far gàncax ga na boobe ru yëpp jàq naan ngir sëriñ Fall yàlla aw lu nekk ci dunya lépp lem ma lu nu xam lu nu xamul mboolem lépp yàlla matil la ñag moo woy wii di sakkuy ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa aye buur na yàlla moo tax ma xam mbuud ya ak sañ-sañ ya la ko ak doole jaag may ya ak xar baax yàlla eh, ma jooy falu laay ma silla ñang na daam zaab sëriñ zaab xarit cey ma sant yàlla aw fekk yi tukki ñuy wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax la ko moo def lépp yàlla jiital sëriñ bamba ak bur yàlla moo rëy biir mooy jiitu dunya wax raabaw yàlla jiitu gi wuru na ku ne mbaaxam gi dëj na bu ne sëriñ fallu rekk dajal fees fépp yàlla yàlla aaw ku sopp Sëñ Fallu dee tabbi jannatoo ku noonu baayu benn boy dee naan yàlla aaw ku sopp Sëñ Fallu koy dee tabbi jannatoo ku noonu baayu benn boy dee naan yàlla aaw alhamdulillahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla seede ne lii sëriñ saaliw génn bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi kuy wut a lu ne ci man na ko xam yaram bi génn bañu la sëriñ Fallu mooy tàndar ma ana soppey baayu mbeen xidaam lu dóor meññi meññut wude sëriñ Fallu moo di koom sëriñ Fallu mooy tàndarma dóor meññi ne xidaam lu dóor meññi meññut wude sëriñ Fallu moo di koom lile dama jël saa lépp man jibi bato mu jàll bi ma durute naa koto li lee dama jël saa lépp man mooy baayu Cheikh te lu bi ma durute koto sëriñ Fallu xajul dunya ana soppe baayu benn sëriñ Fallu xajul dunya takk neer bala wan ca badar la fii ñun fallu dem del fi nun sëriñ Fallu ba mu feeñee alaaji Fallu Mbakke ba mu feeñee la xéewali walwali ci àdduna duutul jeeli lee jar di taltali barke borom Touba. lu la. sharifun bun sharifun. sharifun bun sharifun sharifun. tuuma jublu la. Serigne Fallou du xotti saatir. du tas yaakaar. du daw ku kay laaj. ku laaj mu may la nga géejal Serigne Fallou xànni la. ana Muhammadul Muxtaar. ana Muhammadul Muxtaar. muhammadun muxtaar du maa la ko way yow seyxuna alfadlullaay yaa moom yëf yi may ma ci laa mani lawlaaka cheikh fallu mbàkke walwali bun walwalee te kon na way seyxuna alfudala sëriñ fallu mooy fadlun ah, hasimun ah. xéewal wër la lord du la dañ la mën a daa Cheikh Fallou fii xayril ila man ata tànnee fi xam nanu la la wax borom nguur ga gaaw def na yaay ka jubóog waa axlu diiwaan ya seen ma xam nanu la baytil wilaayati aw sëriñ Falliloo sëriñ bàyyi Cheikh Abdourahman Mbacké baytil wilayati baytil wilayati yaa yor man ba bu wér sirif nga yaa jiite mboolem kuñ naan wàlliwu la gaal gaa ngi nii teer ku nëg ba tarda yaay xala ku dugg ci gaalub sëriñ bi alaaji Fàllu Mbàkke àggale la ku dugg ci gaalub sëriñ bi ah. bàyyi Cheikh Abdourahman Mbacke àggale la ku dugg ci gaalub sëriñ bi alaaji Fallu Mbacke àggale la alaaji Faliloo mooy xalifa billaay alaaji Faliloo mooy xalifa billaay falliloo mooy xalifa billah alaaji falliloo mooy xalifa billah sëñ fallu raayam nga nelo baa nga tuuba sëtam ba yor alaaji falliloo mooy xalifa billah la Touba a sopp Serigne Fallou Serigne Fallou Serigne ne la waa nga Touba sëtam ba yor na ko mooy xalifa billah yi nga nel waa nga Tuuba sëtam ba yor na ko tey Alaaji Faalilu mooy xalifa billah Maam Jaara ak malakoot ak pays arraché sax waaw waaw Cheikh Bamba lañ daa safoo yaa jaaratullah waaw mulku ak malakoot ak pays arraché sax ñoom ku sapp sax ma jaara raayong ne el wa ca diiwaan ak dogal andagal ya fa ama sadom yor lépp yow maam jaaratullah jaara ndaw leer ci kaw leer ba leeral soxna awa soso ci leeri askanu sun maam jaaratullah jaara ndaw leer ci kaw leer ba leeral ku sopp sëriñ Fallu loor nganu sun maam jaaratullah sin fallu leer ganga jaaratullah wala derga nga jolle mu ku sopp Serigne Fallilo jaaratullah Serigne Fallu leer ga nga jolle mu soben Mbakke jant la fa leeral na wa ukhra jaaratullah beeg Mbàkke jant la far jaaratullaa Mbàkke soroor yi Makka ak soroor yi Tayba ya ak xubaati baytil muqaddas am na Tuubaa soroor yi Makka ya سرار تيبا أو قربات بيت المقدس أمن لله وكبل صور يسرنا بلير الكسية أيلنا وملك أكمل لكوتنا جارة الله سرار يسرنا بلير الكسية ملك أرس وملك أن ملكنا جارة الله أجلنا نجلنا سيارة جي أتوبا دم سيارة جي ناويل دم سيارة جي سنو مام جارة الله نجلنا سيارة دم بطوبا دم سيارة جي ناويل دم سيارة جي سنو مام جارة ku sopp soxna jaara jóg leen na siyaare ji dem siyaare ji dem siyaare ji sunu maam jaaratullah na leen siyaare nañ dem ba Tuuba siyaare ji ah, nawel dem siyaare ji sunu maam jaaratullah soxna jaara bëggul wurus bëggul xaalis falewul naga ki doom gëlëm ak i sëfam la daan jox naaru gànnaar bëggul wurus bëggul xaalis ku sopp Cheikh Rafaal na nga naan ci sa teewaay bii bég nañu ñëpp bég nañu lool ñun ñëpp te bég bu ñu bég suñu maam soxna ndeyloo bég na bég bu ko kawee ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak kenn ku si nekk xam na ni sëñ bi bëgg na jotaay bi sax gën a yàgg waaye dafa war a dem ci yeneen programme amuñu rek lu dul di la wax ne ñoo ngi lay sant di gërëm dina ñaanal lépp looy liggéeyal sëriñ bi suñ borom defal na si lu koy sa njort barki borom Tuubaa waaw sëñ bi ñun nit dañ koy dañ lay kalaameeg soxna si nga ñaanalal ñu ko mu yàgg fi loolu te wér ndax bi fi sëñ abdu bi sëñ Abdou wàccee ak léegi moom lañu ñu àndal liggéey bi waaye taxawu na taalibe yëpp képp koo xamante ni def nga naka sudut noonu dina la woo ci du ko wax ak yow ndax moom dëgg rek lay dox ñaanalal ñu ko mu yàgg fi loolu te wér li ma la waxoon sa kër rek muy su ma la fekkee si tànt muy bu ma la fekkee ci kër gi ni ngay waxeek mbool mbokk taalibe du ñu fàttali lu dul ni Seex Abdourahmane doon waxee ak taalibe yi mooy dëgg rek fonk leen seen ndey ak seen baay loo leen am jox leen seen ndey ak seen baay te dem liggéey yi ab taalibe day liggéey ab taalibe du am jot loolu ngay soññee mbokk taalibe yëpp yow dañ lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér barki borom Touba Xaadim Rasul jërëjëf. may di leeru nooray ne